mais ñun ñi ngi problème problème ok mais peut-être le vieux il souffre en silence quoi. yow eh xanaa doo dégg. non de ñun amuñu problème ñi ngi que am na ñeneen ñu ko gën a soxla ñun soxlawuñ ko. mais ne sois pas aussi agressif que cela waa koñ bi ñoo man ne y' a un vieux qui est là xanaa doo dégg wala yow lan mooy sa problème wala ngaa dëx. non j'ai de problème. amuñu benn problème demal yóbbu ko ñeneen ñi ko soxla ñu ñu ngi sant yàlla. parce que merci mais yow rek yow jàllal ma nii mu naan ma pardon. waa ci sax. Eh, kii daal moo taxaw naan day def social naan day wër benn paa ci kër gi ñu pour ut ndimbal ci koor gi ñu muy dimbali ci koor gi ñu ngi dimbali nit ñi ci kër gi ñun lay dimbali waaw mu ñun dañuy dimbali ndax yoruñ waaw kan la ma nga ne di dem kële ne keel may ma may ma may ma ah ah, ah waay booy jërëjëf waay booy <laughs> booy daal yow yàlla na la yàlla defal jàmm yàlla na nga gudd fan loo bëgg yàlla na ko yàlla defal yéen yéen pour yéen yéen lii tax yàlla a leen fi pour ñun da ah, ngeen a baax yow yaa joxe ndimbali Fall waaw bàyyi na nga def yow yaa joxe ndimbali ah? ah maa dëkk fii waaw booy du ndimbali jeex na maa desoon waaye moom ñaako dara sax <laughs> eh, man yoru ma de man su ma añee ma reer ma reer du ma ndékki fii bu ma boy waaw waaw waaw eh waaw boy jërëjëf waay jërëjëf boy eh, demal demal boy demal demal demal demal mais gis nga eh, yow numéro bi enregistré ko boobu am <laughs> li ñuy envoyé xaalis bàyyi <laughs> bàyyi ku aaye wal sa moome gannaaw ba yow da nga yor xaalis moo ñëw sa kër nga am ay dix ans ay dix ans ay en fait xam nga lu ma nga dem tablo xaar yàlla nga ni waaw tablo xaar yàlla da nga dem tablo xaar yàlla kay tout tey ma appo <laughs> ay waay finaalu naa waay waaw bu yeboon <laughs> naa doon lesbienne <laughs> naa doon lesbienne bàyyi waaw waaw ndox naa yor pour lan war nañ oh, waaye may ma jox nga ma yor waaw bu yeboo finaalu naa finaalu naa Si, wai wuri sik. Kami ko ñaan lañu jox rek. Neetu graw la. Ko jigen nga. Waaw yow. Waaw baax waaw baax. Waaw baax na baay baax. Xol na xol. Dar jaru ngay xol defal rek. Defal. Meew. Meew lan. Mooy yow tey tey tere jax ngay ndabo. Yaaye. Kuy sama ndey. Eh mais baay wuy ma. Wuy ma. En fait après. Mënoo maa waay. Bon. Fu ma la jàpp dagal sànni. Yow ngay waga. xam nga moo la ji yolom waa ji ji naan moom du joxe